asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan Touba Argentine TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi xalif général des Mourides mun taxa Mbacké Bachir di ko ñaanal sunu borom gën ko fi yàggal lool te dolli ko wér noonu la ñuy ñaanalee xalif généraux yi ci réew mi yépp di ñaanal jullit ñi fépp fuñ ñu mën a nekk ci àdduna bi xam ngeen ne nag Touba Argentine TV nag macha allah jëwriñ ji nga xam ne mooy ji góor a Seck euh, mu baax mi nga xam ne tey euh, moom mooy njaatige li kenn ku nekk nag xam na ne euh, bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ba tax ñu toog fii tey foofii la bokk mu nekk ci njabootuk Serigne Massamba Diop Sam mu jol liggéey bépp jooyal ko jëmale ko ci ba tax na tey jii. ñu ñëw fii nga xam ne mooy kër Serigne Abdourahim Diop mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Massamba Diop Sam ci euh, bis bi nga xam ne tey ñu ngi ko dëgmal euh, muy le 7 janvier di ziar bi nga xam ne chaque année dafay am ëpp ñaar fukki at a ngi nii euh, njaboot gi di ko amal ci kanamu ñi nga xam ne ci kanamu ki nga xam ne mooy xalifab Serigne Massamba Diop Sam ba tax na tey tey jii ñu amal li nga xam ne mooy réunion bi nga xam ne dafa jëm ci programme mu bis bi. Euh, ñuy amal jataay bu am solo nag ngir euh, waxtaanee ziar boobu lu ko tax a jóg muy cosaan li waaye it waxtaanee li nga xam ne it moom mooy euh, programme bi ak wàccaay weeg fan la toll waaye gën a soññeewaat ci njàngum alxuraanul karim mi waaye gën a soññaat ñi nga xam ne it ñoom ñooy taalibe yi ba tax na ñi ngi ni toog ak ki nga xam ne sama loxo ndeyjoor sëriñ Lokaar Euh, Serigne Locar moom moo war a wax ci programme bi ak soññ taalibe yi waaye Serigne Cheikhouna Diop moom it mi ngi nii sama wetu càmmooñ moom it moo war a wax incha allahu taala ci cosaanal li nga xam ne mooy bis bi waaye soññee ci wàllu alxuraan bi di ziare bu baax Serigne euh, Makhtar Diop mi nga xam ne euh, mooy coordinateur bi nga xam ne ci moom la ñu jaar mu daal di coordonné jataay bi bokk ci ñi bokk ci cellule euh, communication wu ziar bi kon nag xam naa duñu guddal rek ci présentation bi seen bokk aroon si Cissé ngeen ci àndal ci wàllum caméra beeg montage bi mbay Seck moom moo fa fare Touba Argentine TV ngeen di àndal kon dañuy jox kàddu gi Serigne naa Diop mu daal di nuyoo rek nuyoo bi ak laaj bi dañ koy boole Serigne bi ginnaaw boo nuyoo ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci Touba Argentine TV eh, dañ lay bàyyi kàddu gi rek nga ñëwal nu ci ziar bi nga xam ne moom la ñu dëgmal war a nekk le 7 janvier atum 2023 ji ñu jëm eh, eh, cosaan li fan la doore ci aju Serigne bi asalaamaaleykum. mbokki jullit yi ni seetaan ñoo ngi leen di nuyu kon fi mën a nekk. ci gox ci gox yu fasantikoo yi ci nuyoo ba gën a kawe mu di asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen ndokkeel di leen sant bu baax ci jataay bii nga xamee ni ñoo ngi koy amal lépp nag jëm ci ah, kan mooy sëñ Masamba Diop ak bis bii ñu koy defal mooy siyaar bi lan mooy cosaanam wala boog lan moo ko waral kon biñ leen nuyoo yéen ñëpp ci nuyoo ba gën a kawe di leen siyaar yéen ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal mboolem koo xam ni ab jullit la mboolem ku dëkkee ci réew mi bitim réew yëpp ñi leen ñaanal jàmm ak salaam képp kuy dégg suñ kàdd gi ñu doon xamal ni siyaar bi daal lay cosaan li moo di sët yi ñoo ko xalaat ñoo toog jëmmi jamono xalaat ni suñ kët suñ maam war nañ koo defal bésub cant bañ ko xalaatee it dañ ni kon ñun lépp dañoo am kilifa te lu ñuy def lu nekk ci ndigal la war a bawoo comme xalaat nañ ko muy lu rafet nañ ci waxtaan ak sunuy kilifa muy 1997 jëm yëg ko xalaat nag bokk na ci sëñ naa Diop moom sëriñ Souhaïbou Diop bu sëñ ak sëñ Ëllëji ak mbooleem ñan ko àndal ba nga xamee xalaat nañ ko rafet rafetlu ko it ñi nga xam ne ngir mu mën a wéy dañ ci am suñu ndigalul kilifa booba jamono yooyu sëñ Abdou Samad Diop moo fi nekkal sëñ ma Diop Samb ba nga xamee ne mbooloo mi ànd na sët yi ànd nañ dem ca moom ni ko ñun kët dañ leen laaj ndigal bisub boo xam ni dañoo bëgg saa bu accepté ñu di ci jàng alxuraan di ci fàttali ko sëñ Masamba ak di ko ci sant loolee bañ ko waxee sëñ Abdou Samad sëñ Abdou Samad da koo rafetlu lool daal di ciy joxe ndigal daal di koy tudde aw tur almubaarak la bind kero ci loxol boppam daal ni loolu de ànd naa ci yéen jox naa leen ci ndigal bind al mubaarak bindan jox na ci ni man ak ànd naa ci yéen daan cee teg ni wa taxawoona xalal birri wa taqwa wala taxawoona xalal ismi wal xudwaan loolee suñ kon mooy cosaan li ban ci amee ndigal ba noppi nag ñu wëlbatiku jaayante ni kenn sët bu ci nekk ci sëti Sëñ Masamba yi yàlla dénk alxuraan kenn ku ne na jaayante fanweeri kaamil benn sët bu ne loolu la jaayante woon a dana jàngal maamam fanweeri kaamil su bis ba agsee nag ñun ñëpp ñu wëlbati ko waat ca barab ba ak ca jumaa ja yendoo jàng alxuraan ak xasida di def salaatu xale bi ba jant ba so sëñ bi ñaanal nu ñëpp ñu yewi ko ndax sëñ moom lam ci joxewu ndigal mooy jox naa leen digal waaye fa jant bay fenke ak fa jant bay sooyee mhm. moom laa leen jox ndigal ndigal loolu wëcc ñu ko ba jëmmi jamono jii di wen deux deux mille vingt deux ba léegi musuñu ko fanaanal lanu suñ mi joxoon ndigal loolu ci la nekk ba yàlla doxalee ñu doxal ko ñaari at nag suñu sëtu moom Daarul Muxti nga xam ne sëtu suñu ma sàmba la ndax waajuram soxna Fadaam Jóob doomi suñu ma sàmba Jóob sàmba la moom ni moo ne di yéen kët seen bis bi am na tawfeex waaye am na xaas ndax bi nga xamee ne suñu ma sàmba ah, toll na ci wàccub liggéey suñ bi defee yebal maam Ceerno Birahim Mbakke ànd ak sañ Isaa ban ñëwee ban ko waajalee ba noppi ba wax ko ni ko na nga ko santaane woon defe nañ ko noonu ci gàttal dafa leen wax ni daa joxe ndigal ci keroog ca mbooloo ni képp koo xam ne ab taali bi leen na siyaare ji si Masamba mu defalul lu jar siyaare ko man defal naa la ko loolee si am sat ni kon comme loolu ndigal loolu sëñ bi joxe woon na ko mu na ñëpp siyaare si Masamba kon ak cant baax na waaye mënees na ko delloo ci ndigalu sëñ Tuubaa loolu mu joxoon ci Daaru Saam nga xam ne kon képp ku ñëw ku ne ca kàddug sëriñ boobee ndigalu sëñ boobu ci nga ñëwee loolu ma waral ñi bàyyi sant gi tuddee ko ab siyaar léegi nag ba jamono ji may wax yow nii sëñ Saam Jóob it jamono boobe moo ko jiite muy 97 ànd ko mbooleem sët yi fi nekk ak sëtaat yi waaye ñi ànd ko seen i wajur yi ndax boobu doomi sëñ Masamba yi ña ngi fi sëñ Mbàkke ngi fi sëñ Abdu Waaba ngi fi ñoom ñëpp nag dañ cee àndan ak ñoon tey bu masaa ne ñëw ñoom ñëpp it dañuy ñëw ci alxuraan ja fa leen ni yendu di jàng ba ngoon jot sëñ bi génnal boppam waxtaan ak mbooloo mi saafuwanteeg ñoom ñaanal leen kon bis bi loolu mooy cosaan li bis bi loolu mooy ndigal li. macha allah Serigne Cheikhouna Diop ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne andi nga ko muy jëm ci lan mooy sababu cosaanal ziar bu mag bi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal moo war a nekk 7 janvier yi ñu jëm ci dëkk boobu nga xam ne moom mooy ci euh, Daaru Saam. njaboot gi di ko amal ci kanamu xalif bi leeral nañu fa mu jógee atum 1997 la ñu ko door boobaak léegi nekk na at yu takku at mu nekk ñu di ko amal mu wax ci lu am solo loo xam ne nag kenn ku nekk xam na ne ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim euh, bokkoon na ci ak bëggam muy alxuraanul karim muy lu am solo euh, sët yi kenn ku ne jaayante euh, fanweeri kaamil loola yaakaar naa macha allah sët yëpp bu ñu boolee seen kaamil yooyu dana nekk lim bu takkoo takk boo xam ne lu am solo la kon mu nekk ziar bu nga xam ne daal macha allah lépp rek mu ngi aju ci diine tege ci li nga xam ne moom mooy sunna euh, ngir nag euh, wax nga ñu cosaan li euh, bis bu nekk nag li ci am solo mooy buñ koy def waajtaay wa da cay am solo ci programme baak fu mu toll ci aju niñ ko waxee woon sànq Serigne Lokar mi ngi nii Serigne Lokar moom it di kenn ci magi taalibe yi. Euh, ndax ziar boobu gis nañ ne daayira bu am solo euh, muy daayira mu baarak ñoom ñoo koy taxawee mboolem sëdd yi ak taalibe yi lëkkaloo ci danañ ñëw mu ñëwal nu ci daayira bi ak programme beek naka lañ ko waajalee ñu ànd ceeg Touba Argentine TV kon sëriñ Lokaat bisimilah. yéen njabootu sëriñ Massamba Diop Sam gi noo ngi leen di nuyu sëriñ Cheikhouna Diop wax na lépp cosaani bis bi nun taalibe yi nag. li nga xam ne nun noonu lan féetee war koo def mooy soññi taalibe yi ci xam ne ku am lu kenn amut mbaa loo xam ne ñu ko am bariwut war nga caa dox noo xam ne kenn doxe kenn mësu koo doxe ci mbir bisub sëriñ ma Masamba Diop Sam bii noonu yi ko seexu naa waxe rek la deme sëriñ ma Masamba nag day koo xam ne dafa jiitu dafa desul gannaaw kere ba nga xamee ne sëriñ Touba ànd ak sëriñ Momar sali ñu jóge Mbàkke Kajoor ñëw saam saar kër sëñ Mor Batoor Saar fa sëriñ ma Masamba Diop Saam jëkk a gise sëriñ Touba ba mu ko gisee it ay kéemtaan dox na fa yu bari ca la sëriñ Touba aal jàpp ko sëriñ Masamba Diop aal jàpp ko ba mu tàqalikook sëriñ Touba foofee sëriñ ma Tali dellu Pataar sëriñ sàmba Diop Saam dafa daal di delluwaat nexej gëm jóge woon takkaat ay bagaasam fu sëriñ Touba mën a nekk dana ko fa fekk fasanteeg moom coloré kon sëñ Massamba Diop Samb ba muy ànd ak Serigne Touba mm. booba Serigne Momar Sale ngi fi sëñ Touba ànd ak moom di ko sant jiw fos kon ba mu fasanteeg moom coloré yàgg na lool moo waral nun ñii di taalibe yi sëti Serigne Massamba Diop Samb yi ñu topp bi lii tàmbalil nu ko ban man caa sukkandiku ba mën a liggéeyal ma Massamba Diop liggéey bii nu koy liggéeyal war nañ leen santaat bu baax te ñaanal leen bu baax kon nun taalibe yi war a def moo di nanu xam bis bi nu am mooy ban néewaana mbooloo muy dajaloo fi béréb te lu toll ni lii nu sëriñ Touba digal amuñu ko nun li nuy def ci ndigal sëñ Touba la jóge sëriñ Saliou Mbacké ba mu ko duggee ci noppam daa yëkkati attaaya ak suukar ak kafe nañ ma ko ca defal ndigal sëñ Touba kenn du ma ca jiitu ku ma ca mën a manit doom bëgguma nga jiitu ma ca kon nun buñ amee lu mel noonu bañ di ko woote ba toll nii noo ngi leen di soññi di leen xamal ni leen programme bii nu yor ci daayir mu baraka li xidmati ma Massamba Diop Sam mu daj àdduna bi kap Amérique ma nga fa yaatu fa lool ba Belgique ba ba ngay dem Italie Angleterre foo mën a dem ci réew mi taalibe bi sëñ Massamba Diop yaa nga fa takku ci ginnaaw daayiru baraka daayira bi ak siyaar bi moo jiitu ndax siyaar bi ak cant lañ ko doon def ñoom dañu koo dem ba soppi ko ab ab ab ab siyaar mi ngi juddu ci ginnaaw cant gi bi ko sos bi ko bi ko sëti sosee wax ne léegi dañuy sant seen maam ndax dafa leen lu ko jar ba mu soppi ko nag la daayira Mubaaraka door a dugg tur woowu door a ñëw nag dongo yi nag dugg ci nag gis ne kat fu ñu mën a liggéeyal sëñ Masamba Jóob a ngi ñu fa wax la fa nag taxaw boo demee Daaru Saam tey ku fa demoon ca 73 ba fa sëriñ Basiiru Jóob jógee jëm fa fii nu toll étage yaa nga daaru saam ndox maa ngay wal daaru saam làmp yaa nga leer nañ jumaa jag lépp a nga weex tàll takkuk daayira Baraka ci lañ taxawe ba doom joo xam ne sëñ Masamba Jóoba jur sa way jur am nga fa kër tey taalu bi yëpp am nañ fa kër daaru saam yaatu lool rafet lool mbay njaay kër xaadim jëlëb tëli ca tuube yóbbu ko ba biir daaru saam waaw léegi yoon wi moom loolu lépp biir day daayira Baraka ci lañ ko programmé ku ñuy wax ma dikk ñaŋ bi muy nekk ci gouvernement Ablaye Wade daje fa ak sëñ Moussa am sëñ du Khadir la ko ne dëkk bi ni mu lëndëmee mu ne ko bu soobee yàlla bu déwénee ku niitu ci làmp nga niitoo ci biir dëkk bi ci dewen sa keroog bañ demee ba takkusaan la làmp yëpp tàkk ci biir dëkk ba lépp daayira Baraka ndax moo fa yóbbu sëñ Moussa am sëñ Abdou Khadir ci ndigal sëñ Abdou Wahab ñu ànd di ko dox di ko dox ba lépp sotti kon daayira Baraka seen taxawaay ci ginnaaw kër sëñ ma Masamba jub Sam ku dem Dër Sam doo ko nattable daaru Diop a ngi sëñ Mat Diop Masamba ko sañ ci taawu sëñ ma Masamba jub saam moo ko njëkk a nekkalub xalifa taxaw nañ fa jumaa joo xam ne ban ko tàmbalee boo ko seetee pour téeméeri million ban ko tàmbalee taxawal ba mu àgg te daayira Baraka ka taxaw boo demee daaru Sam mbaar maa nga fa mbaar moo xam ne boo ko seetee juróom fukki million mat na ko daayira Baraka ka taxaw ak matériel ba ci biir bépp defar jumaa ja nam mel poste santé baa nga fa defar nañ ko docteur yaa ngay faj ca biir te lépp Daaru Saam ko waral day Daaru Mbaa ko waral boo dikkee këru mës kër kër daayira Mbaraka étage yaa nga fa lépp daayira Mbaraka ko taxawal ci barkeel gu sët yi doon sant gërëm seen maam di ko sant ba lii juddoo ca kon daayira Mbaraka képp ku ci bokk te di dongo mbaa nga dib sët mbaa nga di ko dégg te bëgg sëñ Masamba Diop Samb na nga xam ne fi ngay def sa def sa alal réerut kon noo ngi soññi ñëpp programme bi programme bii nga xam ne moom lañ jërit nag mooy lépp loo xam ne daayira bi laaj na ko te muy loo xam ne sëriñ bi du koo digle insha allahu danañ ko def yéen taalibe yi nag maa ngi leen xamal ne leen sëriñ bi woowul kenn kenn ku nekk yaa xool ba gis ni fii mën naa faj sa aajo tey ak ëllëg nga jaayante nit nag du jaayante ba pare dellu gannaaw takku leen bu dëgër te xam ne am ngeen njiit loo xam ne lu mat njiit la sëriñ sàmba Diop Sam foo ko ne cirib ne kii mooy sama jëwriñ kenn dootu ko nattable ab taxawaayam ñëpp a ko xam Cheikh yu Mbacke dégg naa mu ne ndigal loo xam ne mas naa jóge kër sëñ tubaa dugg biir kër sëñ Massamba Diop Sam waa kër sëñ Touba nañ ko digg amee nañ ko noona programme ci bis bi nag insha allahu ajjuma la nuy jóge fii dem Daaru Sam yandu joxe bu ñu demee lépp loo ne mooy lu fa war ca teraanga yi ci biir dëkk ba te gan ña fay ñëw ak ña nga xam ne ñooy defar programme bi di defar yooyu yëpp teg nañ ko ci loxol Assane Seye moo fay jiitu ji la nga xam ne mooy baas ya ñuy taxaw taxaw muy wër mbaar ya ak ña nga xam ne ñooy toggkat yëpp dana leen yóbbu la ca des sëriñ Màkka ba mi nga xam ne mooy jawëriñu baaraka ci dongo yëpp moom itam pare ba noppi ne ba noppi ay waa këram ak mboolem ku bokk section ci biir tuubaa togg ya nga xam ne moom lañuy togg ci biir waa waañu waañu dayru mbaraka wana wa noppi na lépp ñu ngi ko parewaar nañ ko fii nu toll tey jii nag di fanweeri fan ci weer bii nga xam ne moo di sam moo di euh, samwiye mooy samwiye bii fanweeri fan tey lañ ciy def décembre lañ ciy def sun réunion bu mujj fii ci kër Cheikh Abdourahim Diop muy xalif sëñ Massamba Diop Sam te nuy def lépp ci ndigalam tey la ñuy génn bitse yi kenn ku nekk lañ lay def loo des na la jox bitse boo xam ne moo koy def tey ji ñu nga nee ci ëtt ba di ko génne suñu noppee bu samedi ji dellusee jooy suba ji incha allahu mooy siyaarub Daaru Saam day yendu rek bu nu fa xëyee suba bu nu jullee takkusaan ñaanal ñëpp yeewi ko ndax loolu la ñu digalan ca cosaan la kon nag sëriñ bi lii mooy li nga xam ne mooy cosaan daayira bi lii lay soññee dongo yi kon bu ca kenn des wasalaamaaleykum wa rahmatullah ah, macha allah sëriñ euh, Lukaar ci kàddu yi am solo yii nga xam ne andi nga ko ñëwal nu uh, ak dolli ci kàddu yi Serigne Cheikhouna Diop yu am solo yi uh, ngir gën koo dëgëral waaye ñëwal nu ci daayira bi nga xam ne mooy daayira Moubarak macha allah Moubarak moom wuyu nu turam ndax <laughs> barkeel na. Uh, ndax it ku dégg réalisation yu am solo yooyu nga xam ne wax nga ko fi nga xam ne loolu tey yu bare bari état la war daayira bi ñëw taxawal ko lu mel ni santé ya ci ajoog wàllu yeneen ak yeneen ay yoon ak yooyu. ak taalibe yu am pas-pas ne ci biir kër sëñ Massamba Diop Sam ku mel ni kër Xaadim moom nga wax ko solo yi ñu fi amal kon yaakaar naa allah lu am solo la kon te lépp rek mi ngi juddoo ci ginnaaw ziar bi waaye loolu lépp day delluwaat rek ci euh, barkeelu liggéeyu sëriñ Massamba Diop Sam diggam ak ku tedd ki sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim ak taxawaay bu am solo boo xam ne amaloon na ko ndax kenn ku ne xamoon na euh, taxawaayu sëriñ Massamba Diop Sam ci biir kër sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim waaye dëkk boobu nga xam ne mooy euh, Daaru Sam xam naa dañ ci ñëw euh, ku fa bëgg a ñëw fu muy jaar ak ya ci aju ak ci ban région la bokk département waag ya ci aju waaye xam naa kon dañuy joxaat kàddu gi sëñ Cheikhouna Diop mu daal di def kàddoom yu mujj soññewaale ci li nga xam ne mooy njàngum alxuraan meeg ci aju kon sëriñ bi dañ lay jëbalaat kàddu gi su ko defee nga ñëw ci soññee beeg euh, ci wàllu alxuraan mi euh, njàng mi nga xam ne war nañ ko faa amal ci bis bi defaale say kàddu yu mujj ñu joxaat sëriñ Lokar incha allah moom it mu def kàddoom yu mujj ñu daal di tëj jataay bi euh, nag waajal li nga xam ne moom mooy bis bu am solo boobu. waaw ginnaaw bu ñu leen sante bu baax rek comme ni ko tàmbalee woon ci suñu wax ju njëkk ji rek di ñëwaat nag ci jëmmi bis bi nag niñ ko fas yéenee doxalee te daa ko doxalee noonu rek incha allahu taala suñ demee ajjuma ji bu fekkee julli nañ gee ba noppi ci la ñuy amal wax ko euh, conférence bu mag boo xam ne sëñ Mbàkke Abdourahmane moo koy moo koy amal sët yi ñoo ko fay amal sëñ Mbàkke Abdourahmane moo koy waxtaan buñ jullee gee ba noppi ci ajuma ji incha allahu taala buñ xëyee nag ci lay nekk ci alxuraan ji nag njàngum alxuraan moomu nag mooy cosaanal bés bi te moom lañ ko doore te nu ca ëppal yitte moonu ca ëppal solo ndax ku ne xam na ne sëñ Masamba ak alxuraan ku ne xam na ko waaye bëggug sëñ bi ci alxuraan ak ku ne xam na ko mbaa koo xamul it dégg nga ko kon ñun loolu mooy lañ la taxan ñu sos ko ndax dandan sant di ko jaare ci alxuraan ak xasida asalaatu ala nabi alxuraan ji nag sa jamono ya nga xam ne sos nan ko dañ koo tegan ci loxob sëñ Basiiru Jóob alxuraan moom sëñ Mujj ma Masamba ñu ko ñaanal bu baax su mboom yokk kattanam ak wéram ndax am na ci taxawaay boo xam ni ràññeeku na lool waaye yéemi na lool ànd na positif lool ndax ban ko ban ko ko dénkee ba fii may wax yow fam ci tegan tànkam delluwul ginnaaw geesuwul gisul la muy def lépp lu mu jàpp ba bis ba ñëw dana ko bàyyi nekk ci alxuraan ja nañ ko bëggee te yàlla rek a tax kooku moom pësee fa moom ñëpp ko xam moom. liggéey bi ñu ko jox teg ko ci loxoom mi ngi koy saytoo saytu woo xam ne ñun ñii mu koy defal sax am na lu nu ci ump waaye moom xam na ki tax mu koy def te suñ ma sàmm mi tax mu koy def wul bor daa am fay ndax liggéey la suñ ci waa loo xam ni lu ko waay defal lu ne am na sag fay. lu lu mu mën a doon rek waaye nag yaakaar naa lu ko waaye defal lu ne da nga ci seen dugg fay waaye rawatina alxuraan moom moom la mu daj la. kon nag suñ mu daraame mi nga xam ne ànd nag moom xam ne moom fu suñ bas taxaw rek moom ma nga ca wet ga nga xam ne moom daana saso junniy kaamil mel moom kon moom it amuñu ak amuñu ak fayam. sant nañ ko ba kanam yàlla waaye dañ koy bàyyi ak suñ mosam ba mu fayal ko boppam ndax am nag fayam te mën naa fay kon suñ bas suñ ñaar ñi dañ doon ay nit ñoo xam ni ànd na noog ay mbooloo ak i délégation waaye ñoom dañ cee mel noo xam ni mu ne su leen a bañ a beral ak cant mu ne su leen bañ a tuddit ndax ñaari ñii moom dañ cee ràññeeku ràññeeku goo xam ni moom faawu des leen di beral ak cant cant googu nag dana làmbaale mbooleem ku jàpp ca liggéey ba nekk ak ku ko ànd ak ñoom bàyyiwun ci kenn bàyyiwun ci ñenn di soññe bu baax it ci xasiide yi nga xamee ni bu alxuraan ji jàllee xasiide yooyu amuñu lu dul moom muy kuréeli xasiide yi tàmbale ko ci Touba Cey Cey kan kan ak mboolem Darou ak lu ca aju mboolem fu ab kuréelu xasida nekk ñoo ngi lay woo ci njàngum xasida mi mboolem fu ab duruskat nekk ñoo ñoo ngi lay woo ci njàngum xasida mi ci durus yi mboolem kuy durus mbaa ngay yëkkati mbaar mu mag ma la mboolem ku sasoo alxuraan ñooñu alxuraan jumaa ju mag ja la kon nin ko daan defee rek ak fan ko daan defee dara soppiku ci soññi daal. réseau réseau la bokk. réseau réseau waaw ko fay dem boo jógee Touba boo duggee ci gaara suub Daaru Musti bi yaa ngi wàcc Toubé Fall soo fa wàccee. Toubé agul Kébémer diggante meeg Kébémer 8 kilomètres la. boo wàccee Toubé am na benn raara boo xam ni 4 kilomètres la diggante meeg daru Sam waaw boo jógee Dakar wala nga jógee Ndar foo mën a joge boo ñëwee ba Kébémer rek digganteem ak Toubé Fall ba tey. moom it 4 8 euh, kilomètres la boo fa wàccee ab raara la am na tab la am na raara moo la yóbbu ba ca dëkk bu sell ba di Darou Sam kon nag bis baa ngi noonu ñi ciy soññi ñëpp waaye di ci ñaanal ñëpp it àgg ca ci jàmm ak salaam waaye ñu dugg ko ci bisimillahi rahmaani rahim yi waaye àggale ko ci alhamdulillah tal jëpp aajo jëf waaye indi rek sun boroom yàlla na ko faj ci daraja si Masamba. macha allah barakallahu fik euh, Serigne naa Diop ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne andi na ko muy kaddu soññee rawatina ci alxuraan ji euh, ak li nga xam ne mooy xaside yi ndax wax na ko kenn ku ne xamoon na Serigne Massamba Diop Sam ak alxuraanul karim euh, nit nag lu mu gënoon a bëgg boo koy euh, waajal boo koy defalu bis defal ko ko am na solo lool. kon mi ngi noonu bisu ku màgg jawar màggal ko baril ci ay ñaan rafetal sellal ko sama wajur sëñ Fallou si seeko waxoon muy lu am solo kon yaakaar naa sëñ Cheikhouna sant nañ la bu baax. ak ni nga leeralee it képp koo xam ne yaa ngi jógee ci dëkk bu sell bii di Touba jëm Daaru saam foofu ca Toubé rek. Euh, digganteem ak Kébémer sëriñ bi wax na ko lu toll ci juróom-ñetti kilomètre rek la waaye tuube ngay jàdde rang-rang bi nga xam ne sa loxo càmmoñ bu fekkee dangaa jógee Ndakaar tamit euh, boo ñëwee ba Kébémer da ngay ñëw ba tuube nga jàdd sa loxo ndeyjoor diggante tuube ak Daaru Saam ñeenti kilomètre la am na yoon wu fa jëm macha allah euh, kon mu ngi noonu kon nag xam naa ne dañuy daal di jébbalat kàddu gi ki nga xam ne mooy Serigne Lukaar moom it mu def kàddoom yu mujj rek Euh, ci wàllu soññee bi waaye leeral leeralal ñu ci wàllu sécurité beegee ci aju ndax euh, wàccaay weeg yooyu euh, waa bàyyi nañ ko xel soo ko defee defaale kàddu yu mujj. yéen mbokki jullit yi kon ñu di fàttali ci turu Serigne Makka ba mi nga xam ne mooy président daayira donga yi sëriñ Makka nee na mi ngi soñ bàyyiwul benn képp koo ci xam da ngaa yoroon ab section te dajalee woon ca loo xam ne mboolem suñ ma sàmba jub mi topp sa gannaaw ñoo la ko jox. sëriñ Màkka ne na nga indi ko balaa bis baa soxla nañ ko bu loolu wéyee li nga xam ne moom lañ gën a assister mooy soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daayira Baraka te soxna Faati Bintu Joom sëñ Moodu Joom Masamba jiite woon leen ñaar fukki at ak ñett soxna Faati Bintu dem na ba léegi ak mag jàpp na ko jox na ko rakkam ji wax soxna Musli Jóob yéen ñi nga xam ne yéenay sëti sëñ ma sàmba Jóob jigéen yëpp kon na ngeen takko woon ci ginnaaw soxna Faati Bintu Jóob jàppale ko ba mu am ci liggéey ba réussir gu toll gii mu am réussir soxna si nee na ngeen dimbali ko jàppale ko rakkam jii di soxna Mously Diop ba mu mel ba mu am ngërëm toll lii ma ci am. loolu it ñu ngi leen ciy soññi sëriñ Màkka yit wax na ne bépp dongo boo xam ne moo la jiite sëñ Màkka ne ak cantam ci yéen munu koo xam. waaye nag bàyyi leen ak sëñ Massamba Diop mi ñu leen booleel na te ngeen jàppale ko ci doyloo gu ko njaboot sëñ Massamba Diop gi doyloo woon ba jiital ko ci kanam njaboot gi ngeen ànd ak moom ñaar fukki at ak ñett dox te kenn mu mësu ko cee fakkasal sëñ Màkka nee na yéen ñëpp mi ngi leen di soññiwaat nu takkuwaat ci mu baaraka bi nu may ndam lu toll nii nu am ci Daaru Saam ak ngërëm yu mag yi nga xam ne képp ku fi mos a jaaral sañ ma saam Masamba Diop Saam toxal nañ sa sa ngërëm sa xol seet nu guy ci daayira baaraka nga ñaanal nu guddi ñaanal nu ba ca sëñ Abdou Wahab jóob dafa maa waxoon ne ma sëriñ képp ku ma séen ci yéen ngeen bokk ci daayira Mubaaraka sama xol bi day sedd guy lu ma xaman ne moo ko ñaanee tey jii ci sëñ Massamba Diop Samb mu defal la ko fa nga taxaw nee dooto am jënd yitte ju fajuwut loolu nag képp koo xam ne sëriñ bi jaral nga ko tépp taali bi nag day seet boppam ab taali bi loo jaral sëriñ bi ëppoo sëriñ bi ngor loo ko jaral sëriñ bi danga ko jaral lu ko ëpp kon sëriñ bi nag moom mi nga xam ne dañ koo dénk suñu bopp tey ak ëllëg teyit yaakaar ko te waxanteeg moom ne ko loolu digal nu def ko teeru nu bàyyi ko buñ ñu soññee ci liggéeyub daayira bi war na fa suñ bakkanteeg ci donga yi sëriñ bi sant na lool cant gu ne am ngeen ko ci sëriñ bi te daayira baaraka leen ko may kon lu la may ngërëm lu tolloon sëriñ Tuubaa kenn dootu ko caaxaane kon takku leen bu baax sécurité bi nag bi ñu demee yàlla dogoon CRD bi soxna Ndeela Wàdd mi nga xam ne sët la sëñ sàmba Diop Samb moo leen woo ca këram ga ca Tiwaawoon ak mboolem ñoo xam ne ñu ngi nekk ci biir réseau bu Thiès ci département bu Tiwaawoon arrondissement bi nga fi nga xam ne mooy commune nga Ngandiouf ci la Daaru Saam ne ñoom autorités yi nekk yépp kenn ku nekk jël na sa engagement ci li nga xam ne moom nga wax ne moom nga fay def santé bi dañ fa yebal ay docteur yu ko yor yu ko yor yu mat sëkk ñaari hôpital a fa nekk muy centre de santé bi nekk Daaru Saam ak ba nekk Mbaqis ñoo ñëpp lëkkaloo nañ dégg naa itam ki nga xam ne mooy gouverneur bi nga xam ne moo yore foofa nee na mi ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy ministère de santé mu dolli Daaru Saam wata ambulance boo xam ne bu ñu amee ci pèlerin yi kenn koo xam dañ laa war a wàkkiyee mu mën a gaaw ci ñoom loolu itam ñoom jël nañ seen engagement ñi nga xam ne mooy service de seen ñoom ñëpp danañ ñëw xam ne mooy gendarme yi nekk réseau Thiès bépp nga xam ne léegi ñoo yilif Daaru Saam ñoom ñëpp danañ wax ne danañ fa yebal fanweer nit ñoo xam ne ñooy sécurité dëkk ba ndox mi it sëriñ ki nga xam ne ñoo ko yor wax nañ ne incha allahu du ngeen am manquement ndox ñi nga xam ne ñoo yore courant bi it ñoom taxaw nañ ne jonn incha allah coupure du am dara du manqué kon secret bi yépp ñu ko war a jël ci wàllu gouvernement bi kenn ku nekk jël na la nga war a jël. kon nag bis baa ngoog nun njabootug sëñ Massamba Diop Sall nañ koy defal nanu fab suñu yitte yëpp teg ci ba mu mel nan ko daan melee waa kër sëñ Massamba Diop nag li leen xamee mooy Pastef moo sos kër gi moom la kër gi doxee ba fii te it nit nag lépp lu muy wut te amu ca Pastef. am ñàkk am nga dana yomb dana jafe lool soxna yi nag moom kenn mu leen a fay soxna yi dayru mbaarak wallaahi alazim kenn mu leen a fay ñoo yore léppi mu mbaarak musuñoo dellu gannaaw xéewal yéeg teg yeeg nangu gee sonn ca bis baag yépp sëriñ bi yëg na ko te mi ngi leen di ñaanal kenn ku ci nekk ci yéen fa ngeen nekk yàlla na fa yàlla fekk ak barke loolu sëriñ Màkka waxoon muy jëwriñ dango yi noonu leen mi ngi leen koy soññi alaaji góor a sekk nag moom Isaa Sekk moom xam na ma bu baax ndax maag baayam am na loon bokk bu baax a baax Gora sekk Issa Seck ko jur ak soxna Awa Bey mu dëkk Daaru Jóob Daaru Jóob it la juddoo ba tool noonu yi mu toll baayam sama lépp la mayit léppam laa kon góor a sekk ñu ngi lay ñaanal ci barke sëñ Mbàkke Jaara mi nga xam ne mooy sa sëriñ yàlla na yàlla ak sëñ Tuubaa barkeel seen lii ngeen yor te di ci liggéey ñii nga fi indi it ñu yéwe lañ ñu yaru lañ ñu tabe lañ ñu baax lañ ñu ami teggin lañ Cheikh Sidi Mokhtar dafa xam ne ku yaruwul doo yor dara ku amul teggin doo teggi dara ñoom nag yaru nañ yiwe nañ kon yaakaar danañ yor dara danañ teggi dara kon yàlla leen yàlla sëñ Tuubaa barkeel seen liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, macha allah euh, jërëjëf Serigne euh, Locar waaye jërëjëf it Serigne Cheikhouna Diop waaye jërëjëf it El Hadj Gora Seck mi doxe opportunité bi. loolu lépp rek euh, day euh, waral euh, day wane rek taxawaay bu ak yéene ju mu am ci biir kër Serigne Massamba Diop Sam ngeen ñaanal ko bu baax ci site internet bi mu dem ba nekk télévision bu mag boo xam ne Euh, fu nekk lañ koy dégg ci àdduna bi euh, loola it euh, waaw sëriñ seexu naa nee yàlla ko yàlla def kon sëñ góor a taxawaay bi am na solo lool macha allah ndax it lii ñor na ko lool ziar bi ñor na ko lool bis bi it waajal na ko bu baax a baax ci ay jumtukaay ngir lépp lu fa war a def rek incha allah ñu war ko wane ci site internet bii di tubaa Argentine TV kon ñu ngi leen di sant bu baax sëriñ bi ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne macha allah def ngeen lu mëntoon a ñàkk la lu baree bari euh, leer na ci sëñ naa ñu ngi lay sant bu baax Serigne Lokaat ñu ngi lay sant waaye Serigne Makhtar Diop mi nga xam ne moom it moo nekk ci cordination bi moom it taxawaay bi rafet na lool macha allah kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di dellu di ñaanalaat Serigne Abdourahim jóob mi xalifa bi suñ borom gën ko fa yàggal lool. ak mboolem njaboot gi yëpp. di ñaan yàlla mu yóbbu nu ca euh, bis ba ak jàmm. incha allah bu ñu fàtte it euh, bu ñu nee suba la euh, conférence bu am solo boo xam ne ci guddi gi sëriñ bi wax na ko sànq sëriñ euh, Mbacke Abdourahman borom xam-xam bu mag boobu moo ko war a amal bu nu xëyee nag jublu ci njàngum alxuraan bi ak programme bi bëccëg gi ak bernde yeeg yi ci aju ginnaaw tàkkusaan sëriñ bi génn cérémonie officielle bi waxtaan ak mbooloo mi ñaanal leen ba déwén ak jàmm incha allah. ci présentation bi seen mbokk aroon Arona Cissé la woon moom sëñ Fallou Cissé ci wàllum caméra bi ba Mbaye Seck. Euh, gërëm équipe bu Touba Argentine TV bi yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amiin.